saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa père biram ñi ngi ma joxe xalaatam ci tenib combat Modou Lo Ama Baldé ndax bile combat dana amati renam déet biram ñi ngi joxe na xalaatam li ñu doon xalaat di ko ñaante di ko njort jàpp ne bu Luc Nicolaï génnee dana continuer bile combat beneen jàngoro ñëw na daanu ca mu gën a compliqué moom père biram ñi ngi waxatul Luc Nicolaï mu génn ndax combat bi mën a am waaye couvre-feu bu jeex lay wax ak coronavirus ko jàppoon mois de juillet prochain waaye gis ngeen ni mu fa na teew indaale couvre-feu gannaaw jàpp ñëpp amagul fenn fu ñu taxaw ni reporté nañ combat boobee waaye lii raam bu duggee ci ñag bi combat ba dootu la ñaari situation yooyee daal moom biram ñi ngi jàpp na ne faaw mu jóge fi ba noppi ñuy doog a wax waxi combat jàngoro ji moo fi war a jóge yóbbaale couvre feu état d'urgence ba ne mes na menteg ñu doog jublu ca combat ba rax ca dooli ne képp kuy fans wala ngay amateur bëggoon a gis bi le combat nekk nii jàngoro ji la xeexal bu fi jógee làmb a ñëw ca diggante Siteu ak Papa te mënul Papa ñoom ñaar cinquante cinquante la kenn ëppaleewut sa morom dara bile combat nag dana am bëre bu neex ndax ñoom ñaar ñëpp ay technicien la Papa mën na bës Siteu mën na bës moo tax ma ne bile combat cinquante cinquante la ba mu noppee la ko laaj ndax Gris Bordeaux dana année balance mu ne mu ngi dépendre ci jàngoro ji en tout cas bu jàngoro ji mën naa ne du année balance bëri na ay mbër yu koy laaj bëri na ay promoteurs yu Youssou ne champion ku ko jàppale mu toj dëkk bi la cay teg sax mooy fi ay at yu néew dana ub lamb ji moom kay na koy adversaire nangoo jël rek ba mu wone boppam bu nu jàllee ca mbay juub bu bawol fësal na ay kàddoom ci sunu lamb tolof-tolof ga mu nekkee ñàkk combat ga mu nekke lépp wax na ko ci sunu lamb lam fa leeral mooy depuis mu daanu ci Aline Sey Junior ba léegi mënta am bëgguma année balance moo tax jeune espoir yi ku ma ci tàllal loxo saison bi tàmbaleeg léegi juróomi janvier mu wàcc fils de Batlenski Boy Faye daan ko le 16 ca terrain gaal gi journal ba xamle ne moom Caaka Fay ci galaa yooyu ramassé na ci lu ci toll ci 3 laata coronavirus ak état ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah